asalaamaaleykum sama gars yi bienvenue sur CTGHT depuis Keynote 2017 Apple def ñu présenté benn smartphone bi représente seen dixième génération wu iPhone ñu tuddee ko iPhone 10 ngeen gën ko xam ci iPhone X. depuis boobu iPhone génnee na 4 iPhone X benn mi ngi tudd iPhone X. beneen mi ngi tudd iPhone XR beneen mi ngi tudd iPhone XS ak beneen mi ngi tudd iPhone XS Max iPhone X iPhone X moom mooy première génération wu iPhone mais leen la bëgg ngeen xam ka Apple arrêté na ko produire depuis ba deuxième génération iPhone X génnee maanaam iPhone XS iPhone XS ak iPhone X ñoo tolloo lépp ñoo tolloo écran ñoo tolloo taille ñoo tolloo poids ñoo tolloo batterie ñoo tolloo lépp iPhone xam ne iPhone XS dafay concurrence ak iPhone X léegi mu ne xaama arrêté produire iPhone X léegi iPhone XR ñëw iPhone XR moom mooy premier portable bu iPhone dafa comme iPhone milieu de gamme lan mooy millier de gamme milieu de gamme mooy portable boo xamante ni dafa am presque comme portable haut de yi lu ñu am mais matière yi ñu leen defaree yemul iPhone XR pour m'expliquer le portable boobu nu mel de portable boobu moo gën performant iPhone 8 plus mais moo gën a mooy performant iPhone XS loolu mooy iPhone XR léegi ñu door a yegsi ci portable bi nga xamante ni moo ma gën a neex ci portable iPhone yëpp ba iPhone di iPhone muy portable bi iPhone XS Max tur bi dafa gudd te naqari mais portable bi dafa rafet te neex. iPhone XS Max portable boo déggee turam da ngay yaakaar portable bi dafa ngande mais portable bi ngandewul écran bi moo yaatu portable bi mi ngi wàccaale ak écran bu 6,5 pouces AMOLED si ginnaaw di ngeen ci gis ñaari appareil photo bu nekk 12 millions de pixels la si côté yi di ngeen gis volume haut volume bas ak bouton silencieux bu iPhone classique beneen côté bi di nga si gis buton power bi mais bouton bi lenn laa si seetlu bouton bi moom mooy taal iPhone bi mais du ko fay boo bëggee fay iPhone bi boo bësee bu baax iPhone bi day continuer woo Siri boo continuer bës ba tey dafay continuer wosiri mais du mës fay iPhone bi et di ngeen gisaale aussi partie bi ngeen di dugal seen place SIM fi ngeen dugal seen puce si suuf di ngeen gis place chargeur bi ak place haut bi mais boo leen xoolee dañ mel ni iPhone ñaari haut la am mais pourtant benn rek la am beneen partie bi partie micro bi la portable bi boo xoolee si kanam comme si ginnaaw portable bi vert la mais si côté yi di ngeen di gis aluminium la aluminium bi dafa wuuteeg aluminium bu nekkoon si iPhone X parce que aluminium bu nekkoon si iPhone X boo téewee sa portable sa portable dafa daan faral di glisser waa Apple ñu xam loolu noonu moo taxit ci iPhone XS dañu changé waat matière bi boo ko teewee du glisseeti portable iPhone XS Max dafa wàccaaleeg ak trois couleurs couleur bu gris couleur bu blanc ak couleur bu doré mais couleur doré bi dafa rafet portable bi ñeent mbir moo ma neex ci moom ñeent muy écran bi processeur bi caméra bi ak sécurité bi portable bi moo ëpp sécurité ci portable yi ma mës yore yépp ecran iPhone XS Max moo nekk écran bu ma gën a neex si écran yu iPhone mës a wàccaaleeg yépp bi moo nekk écran bu gën a yaatu ci écran yu mës a wàccaaleeg iPhone yépp ecran bi itam moo nekk écran bu gën a leer si écran yu iPhone mës a wàccaaleeg yépp écran bi mi ngi yaatu yaatuwaayu 6 virgule 5 pouces ecran OLED bi bu fekkee ni yow da nga bëgg écran yu ngande écran yu leer écran yu brillant portable bi sa portable la parce que ecran bi dafa wuuteek ak ecran wu ñoom iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8 ñoom nga xamante ni seen écran dafa daan tuuti ba pare am ñaari ngandi bordure boo xoolee iPhone X yi seen écran bi dafay jël kanamu portable bi yëpp et itam fàtte naa leen wax iPhone XS yi dañ leen certifié IP68 wuuteeg iPhone x bu njëkk bi mi nga xamante ne dañ ko certifié woon IP 67 lan mooy différence bi IP 67 mooy sa portable mën na dugg ci ndox lu tolloog 1 mètre pendant 30 minutes IP 68 mooy sa portable mën na dugg si lu tollook 2 mètres pendant 33 minutes ñu ñëpp d'accord nañ si leen iPhone dafa rapide iPhone dafa puissant mais iPhone bi dafa raw parce que iPhone bi dafa puissant ba nga xamante ni mun ma ko comparer ak yeneen iPhone yi mais mun naa ko comparer ak iPhone X pour comparer ak iPhone X iPhone X mi ngi wàcceek ak benn processeur bu ñuy wax processeur A11 bii mi ngi wàcceek ak benn processeur processeur bu ñuy wax A12 Bionic lan mooy seen différence leen rek ngeen si jàpp iPhone bi moo gën a gaaw de 15 pour cent iPhone bi moo gën a puissant de 50 pour cent mais itam iPhone bi lu muy consommer si batterie moo gën a tuuti mais bu ñuy wax si batterie portable bi moom moo gën a ngande batterie yeneen portable yu iPhone mës sa defar yëpp moo taxit moo ëpp autonomie si yeneen portable yu iPhone mës sa defar yëpp portable bi mi ngi am autonomie de 6 heures 30 portable bi mi ngi am RAM bu giga bu fekkee ni yow da nga bëgg di jeu wala ngay tàmm di am ay ubbi ay fichier yu ngande portable bi sa portable la parce que RAM 4 giga bi ngeen di dégg dafa am doole ak puce a bi mu àndaaleel portable bi am na ñetti version am na version 64 giga am na version 256 giga ak version 512 giga bu fekkee am na benn raison bu tax nga war a jënd iPhone XS Max wala iPhone XS muy appareil photo bi ñu dëgg portable bi appareil photo bi dafa leer naññ que nga nekk pro que nga nekk euh, koo xamante ni dafa bëgg di def ay snap ay trucs comme ça ci réseaux sociaux yi portable bi leen moo si gën a jafee nga jël si photo bu ñaaw iPhone XS am na portrait selfie mais itam am na portrait si ginnaaw mais iPhone bi dafa wàccaale ak benn option boo xamante ni si iPhone XS kese la am maanaam nga jël photo portrait ba pare après léegi nga modifier floutage bi ci ginnaaw maanaam nga yokk ko walla nga wàññi ko bu la neexee nga dindi bu fekkee am na benn raison bu tax ma bëgg iPhone walla bu fekkee am na benn raison bu tax yow nga jënd iPhone mooy sécurité mais portable bi moo ci raw iPhone XS dafa wàcceeg benn système de sécurité bu ñuy woowee Face ID maanaam reconnaissance faciale portable bi day xàmmee sa kanam pour déverrouiller sa portable mais mën na déverrouiller sa portable si condition bu nekk mën na déverrouiller sa portable boo nekkee fu lëndëma lëndëm wala nga nekk fu leer leer mais itam mën na déverrouiller sa portable boo nekkee si biir ndox wuuteeg empreinte bi ñu xamoon nga xam ni sa loxo bu tooyee doo ko mën déverrouiller au fait mënu ma leen wax lépp si Face ID jamono jii mais dinaa def benn vidéo boo xam te ni dama leen di expliquer lépp lu Face ID àndal bu fekkee am na leen lu ma naqari si portable bi mooy chargeur bi ànd ak si boîte bi chargeur boobu moo gën a yéex si chargeur yi ngeen mën a jënd yépp iPhone da ngay jënd portable bu cher portable bi mi ngi jar sept cent vingt cinq mille sept cent vingt cinq mille waaw dafa cher mais chargeur bi muy àndal non dafa yéex trop trop trop parce que pour wax leen benn exemple portable bi chargeur bi nu mu yéexee. portable bi dama ko branché ak beneen portable bu yore chargeur rapide ma branché ko portable boobu mi ngi am 40 pour cent de batterie iPhone bi mi ngi am 70 pour cent de batterie portable bi am 40 pour cent fees na iPhone bi moom mi ngi am 89 pour cent de batterie juste pour wax leen à quel point dafa yéex mais est-ce que après li ma wax yépp jóge iPhone X dem iPhone XS Max jar nag loolu sa dépend si yow bu fekkee ni yow da nga bëgg écran bu gën a ngande waaw jar nag mais bu fekkee ni danga bëgg jóge iPhone X dem iPhone XS Max ndax appareil photo bi mun naa la wax jarul ngay changer parce que seen différence lu ndaw a ndaw la doo ko sax ràññee mais bu fekkee nii yow da nga yore iPhone 8 nga bëgg am même nouveauté yu nekk si iPhone XS Max dama lay conseiller nga jënd iPhone XR iPhone XR dafay def lépp lu iPhone X Max di def lépp lu iPhone XS di def lépp lu ma leen wax si biir video bi dafa am plus A12 bionique dafa am Face ID dafa am nouveauté yu iPhone wàccaaleeg yépp te moo leen gën a moins dafa am portrait si ginnaaw dafa am selfie iPhone XR yeneen iPhone yi ëppale wuñ ko dara lu dul yeneen iPhone yi dañ leen def rek vers kanam vers ci ginnaaw ak aluminium iPhone XR dañ ko def rek vers ci kanam vers ci ginnaaw ak métal loolu rek mooy seen différence yaakaar naa ni vidéo bi neex na leen bu fekkee da nga bëgg may def yeneen vidéo yu mel nii di présenter benn produit di la ko expliquer wala may wax si iPhone bu fekkee neex na la wax ma ko ci commentaire yi c'était CTGHT ma leen di jox dig daje si beneen vidéo incha allah peace et bul fàtte de